asalaamaaleykum mbokk yi daleen ak jàmm ci seen rubrique sud fiscalité gannaaw ba ñu waxee ci mission yi ak compétence yu DGD tey ji dañuy wax nag service yi nga xamante ne ñu ngi ko jagleel waaye jëfandiku yi li ñuy njëkkee mooy lu ñuy duppee contribution globale unique ñu koy wax CGU dañ ci waxtaanee ak docteur Abdoulaye Gningue di inspecteur principal des impôts et des domaines nekkit chef du bureau de la stratégie et de la modernisation ca di docteur Gningue ñu ngi lay nuyu dina dalal jàmm. maa ngi leen di fay madame di nuyu auditeurs yi rajo bi yëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla émission bi ñuy def yàlla na ci njëriñ feeñ. contribution globale unique ndax mën nga ñu ko tekkil mooy lan. waaw contribution globale unique nag boo ko déggee li ko wundu ñoo def taxaw seetlu xool xam ne loolu ñuy woowee secteur informel dañu am ay jafe-jafe pour daal di euh, fay lempo looloo taxoon ñu ne nañu def tënk lempo boo xam ne dina yombal mbir yi moo tax contribution globale unique daal di nekk impôt bu nga xam ne dafa dafa tënk juróom-benn impôt nga xam ne ñooñu bu ñu bëggoon a waaxu ñoo impôt l'impôt bu ne ñu fay la mën naa métti donc ñu tënk juróom-benn impôt tuddee ko contribution mu tudd contribution globale unique juróom-benn impôt yooyu ñu tënk nag bokk na ci impôt sur revenu des bénéfice assis sur les bénéfices industriels et commerciaux l'impôt du minimum fiscal la contribution économique locale maanaam mooy patente bu njëkk ba la contribution des licences de débit de boisson la taxe sur la valeur ajoutée maanaam ñu koy wax TVA et la contribution forfaitaire à la charge des employeurs juróom-benni l'impôt yooyu la ñu tënk ci benn pour may contribuable bi nga xam ne seen doole demewul noonu pour ñu mën di ko ñëw déclarer ko benn yoon ci at mi pour mën leen a dimbali loolu mooy li nga xam ne mooy contribution globale unique ak ay cëslaayam ak li koy wundu euh, loolu lañ mënoon daal di tontu ci laaj boobu. kan moo war a fay loolee ñu duppee CGU. waaw kan moo war a fay contribution globale unique. ki ko war a fay nag mooy képp ku nga xam ne yow nit nga personne physique maanaam kom yow comme man. ngay nekk di yëngu ci benn activité. te yow sa koom. maanaam juróom fukki million lay toll wala lu ko yées maanaam rombul juróom fukki million loolu bu fekkee personne physique nga rek boo nga xam ne yaa ngi jaay wala yaa ngi def ay prestation de service kooku la ñuy laaj contribution globale unique waaw pour wax ne nag ñi nga xam ne mooy suñu mbokk avocat yi médecin yi notaire yi ñooñu moom mënuñu nekk contribution globale unique ndax ñooñu dañoo njort ne am nañ ay jumtukaay yu leen wala mën a may ñu nekk ci régime du réel maanaam lempo bu ne ñu dem fay ko ca waxtu wa ak ca na mu ware ndax ñoom jumtukaay yëpp daanaka am nañu ko waaye ñi nga xam ne mooy suñu mbokk yi nekk ci commerce bi ñoom dañoo njort ne amuñ jumtukaay yooyu moo tax ñoom ñoom ñu bokk fa waaye ñële moom bokkuñ ci waaye ñi nga xam ne dañuy yëngu ci njëndum njaay ak suuf ay immeuble ak gestion immobilière ñooñu it mënuñ leen boole ci contribution globale yi ak structure yi maanaam li ñu woowee personne morale lu mel ni rajo bii ñuy waxee tey ñu mënuñu mbokk ci contribution globale unique. naka lañ ko war a déclarer ci ban waxtu ak lan lañ war a topp daal ngir rek fay euh, CGU. waaw ki nga xamee ne moo ko war a fay dañ koy laaj koomam nga xam ne 1er janvier ba 31 décembre. mu daal di koy ñu saytu ko ba xam ko mu daal di ñëw ñi nga xam ne daal di moom nag day jiitu ñëw lu ñuy wax ci fukki fan juróom yu njëkk yi ci weeru mars ak weeru mai dafay joxe lu nga xam ne mooy acompte waaw loolu lu am njariñ la ñi nga xam ne nag ay la yëwén seen lempo moom weesuwul ñaar fukki junni maanaam cent mille francs ñooñu moom benn yoon la ñuy ñëw fay par anticipation par fiche bu ñuy wax fiche de paiement par anticipation war nañ koo def balaa le premier mars ci at mu jot ñooñu moom noonu la ñuy fayee loolu ñuy wax contribution global unique. ndax am na ay daan yoo xamante ne yoon teg na ko ngir képp koo xamante ne déclaré wul basam waaw waaw xam nga nag contribution globale unique moom euh, képp ku nga xam ne ñëwoo ku nga xam ne ay la yëwén da ngaa war a ñëw fay si ko te ñëwoo. alors loolu l'impôt dafay dajale dafay am ay daan yu mu lay daan maanaam lu ñu woowee taxation d'office dañuy xëy rek ne la waaw montant bi yow yaa ko amee daal di la koy laaj. Euh, ci loo sañ ta waaye léegi nag ñi nga xam ne nag waaye ñoom ñëw nañ déclaré waaye am na lu ñu làq ñooñu it am na nuñ leen di saytoo li ñu làq ñu buñ ko xamee dañ leen di wax kaay leen joxe ko ay la yéwén daal ci teg ay daan yu nga xam ne moom la ñuy wooye ay pénalité loolu daal lañ mënoon a euh, tënk ci ci sanction yi di tëjee nag ne contribution globale unique boo ko déggee régime la boo xam ne dañ ko sos rek pour que contribuable yi daal di fay mën a nekk lu ñuy wax euh, alors régime de transit dañ fay jaar rek jàll waaye duñ fa toog nag ay la yéwén jëmale abadan non loolu taxu ko woon a jóg li ko tax a jóg daal mooy jaar jàll pour mën a formaliser wu pour mën a développer wu pour mën a contribuer ci effort de développement national madame daal lii mooy li nga xamee ne moom la ñu mënoon a tënk ci contribution globale unique di ñax askan wi ci lempo ndaxte li ñëpp bokk il faut que ñu dajale ko pour li nga xamee ne nii mooy mooy da jëmale réew mi kanam loolu mooy li nga xam ne moom laa waxoon ne naa ko tëjee di ko ñax sama bopp di ko ñax askan wi ndaxte loolu moom mooy euh, li nga xam ne mooy njëriñu réew mi di suñu njëriñ ah dap njëriñu réew mi nag ba suñu njëriñ feeñ ci moo gën dab suñu njëriñ ba njëriñu réew mi réer. donc docteur Abdoulaye Gningue ñu ngi lay jaajëfal di fàttali ni yow yaay chef du bureau de la stratégie et de la modernisation te DGID. wasalaam mbokk yi FM di leen jox dig daje fii ak ñaari ci ay bés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver dans votre rubrique Sud Fiscalité. Après avoir parlé des compétences et des missions de la DGID, nous allons aborder les services réservés aux usagers. D'abord, la contribution globale unique CGU. On en parle avec Dr Abdoulaye inspecteur principal des impôts des domaines, chef du bureau de la stratégie et de la modernisation. Bonjour docteur Ning. Bonjour madame et heureux de retrouver Sud Fiscalité. Merci. Docteur Abdoulaye la contribution globale unique CGU La contribution globale unique est un impôt synthétique qui agrège six impôts et taxes, à savoir l'impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt du minimum fiscal, la contribution économique locale, la contribution de licences des débits de boissons, la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. Et qu'est-ce qui motive l'avènement de la contribution globale unique Alors, la contribution globale unique, rappelons qu'elle a fait irruption dans notre corpus juridique en 2004 en collaboration avec l'INAQUA, fondamentalement pour tenir compte de la dualité du tissu économique et de ses contraintes d'administration. représente une grande économie de formalité eu égard à celles qui sont nécessaires pour s'acquitter des six impôts qui sont compressés dans cette contribution. Alors, ce régime simplifie la fiscalité des petites entreprises est présente par ailleurs un grand intérêt pour l'administration fiscale dans sa volonté de mieux appréhender un secteur informel surpeuplé de contribuables volatiles. Maintenant, quels sont les objectifs de la CGU La contribution globale unique a pour objectif, entre de permettre aux petites entreprises de s'acquitter en une seule fois et définitivement de leurs obligations fiscales, de favoriser le civisme fiscal, d'élargir l'assiette et d'adapter la fiscalité aux petites unités économiques. De permettre enfin une réduction des coûts de gestion de l'impôt et améliorer l'efficacité administrative. Qui doit payer la CGU, contribution globale unique, je rappelle La CGU est payée par les petites entreprises et les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel TTC n'excède pas 50 millions, donc pour les commerçants et les prestataires de services. Mais il faut rappeler que les professions libérales sont exclues de la contribution globale unique. C'est le cas des médecins, des avocats, des notaires, des huissiers, etc. Mais également les personnes physiques qui s'adonnent à la vente, location ou bien à la gestion immobilière. Les personnes morales également sont exclues de la contribution globale unique. Docteur Ning, comment déclarer la CGU Alors, unique comment on la déclare et on la paye. Cette contribution globale unique année en considération de la totalité du chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Alors le montant de la contribution globale à 5% pour les prestataires de services, mais avec un minimum de perception de 30 000, mais 2% pour les commerçants et les producteurs avec un minimum de perception de 25 000. La contribution globale unique donne disons, à un versement d'acompte qui est égal au tiers de l'impôt à verser, mais qui sont payés spontanément. Je dois le rappeler, les 15 premiers jours, ça c'est important, des mois de mars et de mai de l'année d'établissement de l'impôt. Donc ils doivent être payés au trésor public compétent. Il est à noter également que les contribuables dont le montant de l'impôt n'excède pas 100 000 francs sont tenus, par contre, eux, de payer spontanément la contribution globale et ce paiement effectué en une seule fois et par voie de fiche de paiement par anticipation avant le 1er mars de chaque année pour l'année effectivement en cours. Donc ça, c'est très très important. Y a-t-il des sanctions prévues par la loi pour défaut de déclaration Alors, tout contribuable soumis à la contribution globale unique qui ne fournit pas dans les délais impartis la déclaration qui, qui est prévue à cet effet est taxé d'office. Maintenant, les autres infractions, on les sanctionne comme en matière d'impôt direct, c'est-à-dire si vous avez éludé des droits, on vous réclamera ces droits-là, plus des pénalités qui peuvent aller naturellement de 25 à, à 100%, ça dépend de, la gravité de l'infraction commise. On a eu à le répéter dans les numéros précédents, euh, effectivement, quand on abordait un peu les impôts directs. Docteur Abdoulaye je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et je remercie les auditeurs de Sud FM. Je rappelle que vous êtes inspecteur principal des impôts des domaines, chef du bureau de la stratégie et de la modernisation au niveau de la DGID. C'en est tout, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. rendez